tey nag ñu di ko dalal en tant que euh, ku bokkoon euh, ci ñi nga xam ni ñoom ñoo lorule woon ci suuxuk bato la Joola ñaar fukki fan ak juróom-benn weeru septembre atum 2002 xam ngeen ne léegi tey ñu egg ci fàttaliku tiis boobu moom mu ñàkkoon ci ñaari doomam wëlbatiku nag bokk ci kuréel gi nga xam ni moo ëmboon njabootu ñi lorule ci boobule euh, bato di la Joola tey ñu war a waxtaanee loole nga xam ni mooy càkkutéef yi ñu amoon. wante itam dellusiwaat ci xew-xew ba ak nanu ko dundee woon sëñ bi Keita ñu ngi lay nuyu dalal jàmm ci dem ak Tay soxna si maa ngi lay dellu nuyoo di ñi ñuy déglu ñëpp auditeurs yi euh, euh, Rewmi FM euh, di vraiment di rafetlu émission bi nga xam ni chaque fois dañ may woo ma laaj Euh, tey nag muy mbëgte bu rëy euh, bien que li ñuy fàttaliku lu metti woon la ca jamono. Mhm. waaye nag euh, daan leeral lépp loo xam ne dañ ko leeral bu soobee yàlla. Mhm. waaw ñu tàmbalee ci dellusiwaat ci le vingt 26 septembre 2002 naka nga yëgee suuxug bateau le keroog. waaw maa ngi dellu dellu santaat bateau le Joola bi bi muy suux eh, fekk ci réew mi. Euh, mi ngi ma fekk ma nekk Italie indisponibilité laa ne woon parce que pour ma expliquer nit ñi ne alkaati am nga droit sooy liggéey nga ñaan indisponibilité un an deux ans ma ñaan demoon Italie waaw ci usine ba ma doon liggéey bi may génn juste lañ ma woo ci téléphone xamal ma nag ne bateau la Joola dafa suux loolu la ñu njëkk wax ma ne ah loolu de doy na waar ñu xamal ma aussi sama ñaari doom yi doon ñëw Thiès di seeti seen yaay ci la ñu bokk te dañ leen porté ma dellu sant ci yàlla encore ne moom moo ko mayoon moo ma mayoon doom yi jëlaat na ko ni mu ko bëggee maa ngi ciy yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin laa njëkk a wax mm-hmm. ah, bu baax a baax nag yàlla moo xam ni tax mu jël leen sama xel daal na it ci ne yàlla moo ni jaarale ko ci Seydina Muhammad ne képp ku dee ci ndox te xar woo sa kër àjjana la comme que lakk ci lakk it dee ci te dee xar mm-hmm. sa kër àjjana la donc tey jii xam naa ne ñoom ña nga tëdd ci àjjana te loolu loolu la ñuy saxlu saxlu yàgg bu yàgg àddina la ngay génn àddina te boo dee da ñaan yàlla dem Euh, àjjana te ñoom seen place déjà ma nga ca àjjana. Hmm. mais ban ah. yëg-yëg nga am keroog est-ce que ni mu tiisee woon euh, yow tiis boobu daloon na la wala danga sant yàlla rek yëf yi woyof ci yow naka nga ko dundee. ma ni ma ko dundee comme ni ma la waxee rek sant yàlla metti woon na lool ki ma njëkk xalaat mooy sama soxna. Hmm. sama soxna laa xalaat eh, am sa taaw ak ki topp ci moom. Eh, ñu woo la te ba mu ko jógee yàggul parce que dafa leen seeti une semaine après mu ñëbb si Thiès pour deel xaar ñu ñëw am na sax ay bagages yoo xam dañ ko jox mu ndaalee ko ñoom andal leen ko mu jiitu leen jiitu boobu mu ñëw toog rek une semaine ñu ne bato bi suux na ñoom génn nañu àdduna man ñoom laa moom laa njëkk xalaat di xalaat aussi yaayam parce que seen yaay yaay sama soxla ñu ne mm. waa su moom la ñu woon moo leen yar jël di jàng ba at bi ñu am lépp moom la woon amul woon ñoom daal mu doon doomam. donc euh, te ñooñu aussi may xalaat waa kër googu den xalaat bien que métti woon na ci man am naa xolu muñ am naa xol parce que jullit laa euh, te maa ngi di def samay salatu ala nabi maa ngi def samay laa ilaha illa allah samay astawla al azim donc gëmoon naa ni li yàlla moom lu ma namb si doomu aadama dem te yàgg yàgg dem la. Mm-hmm. waaw ak na ngay demee ku ci ne ak na ngay génnee àddina. waaw vraiment dem bi waaw métti na méttiwul parce que yàllaa leen jël te li ma la d au début seen kër ajana la mm-hmm. mais loolu rek doy doy nu la sant yàlla waat bu baax a baax waaw mm-hmm. waaw waaw d'accord léegi gannaaw hmm. suux gi nag euh, yéen parents yi njaboot gi yan jéego ngeen jëkk teg. voilà léegi damay tàmbali xamal nit ñi pour yee leen parce que nit ñi bu lay déglu war nañu xam ni tax hmm. man euh, ñu bëri ñu ma xamee ci ne maa ngi jiitu alkaati yu retraité yi yu Sénégal mais boobu Cheikh naa kay tala ba léegi bii nag association bi ba ba toolu Joola suuxee dafa amoon benn kuréel bu njëkk bu njëkk a jóg taxaw bi ñu jógee nag. ay parents yoo xam dañu amoon ay ñu gaañu ci bi mu metti leen ñu jóg nag di vraiment ñu riposter bu baax a baax ba état bi tiit dañoo tiit laa la wax. Hmm. ba ñu tiitee ci waaw dañoo tiit Abdoulaye Wade dafa tiitoon xamatul fu mu jëm parce que jóg nañu ñëpp di jog di manifester mu tiit ci la créer nag association bi pour chercher la division. Hmm. bu association en 2003 bañ koy teg kan moo ko teg kan moo ñëwoon Abdou Fall ministre des forces armées autant Mamadou Niang général Mamadou Niang ministre de ay Aïda Mbodj ñu bëri nga fa tawoon bañ koy teg bañ ko jëlee ñu jël Moussa Sokho nommé ko président de l'association jël Abdourahmane Tine Dakar premier vice président Boubacar Ba ñu nommé ko porte parole man ñu nommé ba deuxième vice président tey yàlla def na li mu bëgg dix-neuf ans après yàlla def na tey ñoom fekk wuñ ko Abdourahmane Tine génn àddina euh, Moussa Sokho génn àddina man mi occupé poste vice président bi rek deuxième vice président forcément maa dirige tey man maa nekk le président de Eh, loolu moom en attendant que beneen assemblée générale am ñu confirmer sama position wala ñu infirmer ma mais ba léegi daal ba dix-neuvième anniversaire bi tey maa nekk ci kii bi di xamal leen aussi ne ñun dañu am lu ñu metti li ñu metti moo di eh, dafa mel ni tey ji Macky Sall ba mu faloo ba léegi daf ñu fàtte fàtte bi moo di. du vraiment doy na waar. waaw bala ñu yegg ci Macky ah, Sall. su Abdoulaye Wade bi yëf yi xewee euh, lan la ñu def comme effort pour euh, yéen euh, xëy na soulager leen ci. ci mm, tiis bi seen kaw. soulagement bi yëpp moo di recevoir nañu. toog nañu ñu toog ñëpp toog ñu recevoir ñu toog waxtaan ñu wax affaire indemnisation mooy xamal nag tey Sénégalais yi. ñu bu ñu kenn teg ni yaakaar ne ñun dañu imposer dara ci état bi Abdoulaye Wade na ko day lii nga ñuy jox parce que ba ñuy dem ci ñun xamoon nañ côte marine bi lan la ku suux ci bato ku ci ne indemnisation bi cinquante million la woon par victime mais ba ñu yeggee ba toog waxtaan dañ ni ko seeta li la doy. seetal li la doy ah, moom moo jël waaw loolu lañ ko wax moo jël initiative ne jox naa vingt milliards famille yi ku ci ne am dix million parce que dañ ko euh, xayma woon ci mille huit cent cinquante trois morts et porté d'histoire soixante quatre hmm. waaw ñun benn wax rek moo ñu ci métti woon métti bu méttee métti dañ koy fàttaliku ba léegi. moo di. Hmm. sa Seck ba mu demee nda euh, euh, Ziguinchor ñu posé ko question. Hmm. wax ju gàtt joo xam ne franchement dafa yëngal suñu xool waa di ñëw ñëw na accident la rek nañ ko jàppee noonu euh, état bi lii la am ci lu mu leen di jox à l'époque il avait proposé trois millions lii la ñu am nañ jàppee loolu wax ju ñu metti lool. di nga ko hmm. fàttaliku ba Ilaah. loolu la Idrissa Seck waxoon moo ko waxoon Ziguinchor te dama koy rappeler parce que ci rajo laa nekk te ñëpp dañu ma dégg. ballu na delluwaat na ba baru àq. ne dafa wax wàllum parce que ñu ñàkk ñàkk bu metti nii nga wax leen loolu vraiment doy na waar beneen bi moo di wax dafa jëloon engagement ne at bu jot dana yóbbu fukki nit ñoo xam ne ci famille Batory lañ nekk ñu dem màkk ziar ji ñaanal seen i seen jawaa seen i eh, xam dañoo waaye dañoo dem ci Batory la Joola beneen bi dafa proposé woon ni dinaa def la fondation bi Batory la pour que vraiment mu ñu mën tege beneen bi wu ne le renfoulement aura ñeenteel mooy cimetière yi nekk dakaar bi nekk Banjul yëpp dañ ko toppatoo def ci lépp lu ñu war beneen bi mooy mémorial la Joola bi nga xam dañu war a def tax benn Ziguinchor ak eh, boobu aussi mu jël engagement yooyu ne dana am suivi daal ni les orphelins du Joola dana leen toppatoo mais liñ ci gis kuwaak bi ci am moo di bu ñu jël orphelins yi ñu nekk âge mineur rek la ñuy jël mais ñi nga xamoon orphelin majeur lañu woon de nekkoon majeur à l'époque kenn jëlu leen dana leen topp mu ni beneen bi mu ni étudiants yi aussi dana leen topp ba jeexal seen jeexal seen njàng jox leen liggéey loolu Abdoulaye Wade moo jëloon tous ces engagements là par rapport à ça état continuité la état bu nekkee continuité yaakaar naa ni kii ko remplace bu ñëwee moom engagement yooyu mu jëloon lan la ci jot def. waaw soxna si balaa balaa ñoo yegg foofu ñu commencé. Hmm. bato bi bato bi dafa paanoon ba mu paanee ñu ne dañ ko war a réparer changer moteur yi parce que moteur bu ci ne quatre cent cinquante millions lay joxe day jar mooy deux milliards. ñu jël koy est ce que repas est ce que yi nu ko ñu colmaté ko loolu laa koy wooyee dañ ko dañ ko colmaté colmaté ñu del ne voyage inaugural parce que waa Casamance yëpp ngi doon xaar bateau bi mëntu ñoon dem mëntu dikk ak insécurité dafa bi moo gënoon wóor ministre des forces armées ministre des transports de l'époque ay autorité ñoo dugg ci bateau bañ ko colmaté naan dañ ko yóbbu pour wane ko bi ñu demee ci digg géej benn moteur bi panne ñoom te la bëggoon tuux sax yàlla moo leen yàggale mais ba ñu yàggee au lieu ñu wax dëgg li xew dañ ko nëbb ba nekk foofu commandant de bateau bii ñu accusé moom mooy euh, mooy mooy mooy responsable naufrage bi parce que moo ko surchargé te lu amul kooku bëggoon na ko dénoncé ñu menacé ko na ko boo ko waxee dana la sanctionné tu seras radié de l' hmm? de la marine waaw ñoom seen ñëw ministre yeeg en grande pompe gars yi ñu wax li ñuy wax jëlaat avion ñu bis si Ndakaaru lu tax jëlaatuñ bi parce que xam na li ci nekk voilà la situation donc loolu ñu donc tey tey bu ñu wëlbatikoo ne y' a pas de y' a pas de responsable dans ce naufrage procureur bi ne woon d' alors ne le seul responsable mooy kii parce que on l' avait intimé hors de dire xam na ne loolu amul. Euh, ñi surchargé bato bi ñi jaa jaay biyee ba ci magu yi ba fa amoon ak nga xam ne gisoon nañ ne moteur dañ ko war a changé wuñ ko ñu magu yi dans autour de tout ça donc par conséquent tey jii ñu wax ni les responsables sont là et que nous demandons haut et fort que justice nous soit rendue. yéen information yi ngeen di wax nii fan la jógee est-ce que lu la. waaw mais xoolal soxna si man alkaati laa wa waaw euh, te renseignement xam naa ko bu baax. Mhm. fa ma jëlee samay renseignement xam naa ko te li ma wax kenn du ko weddi maa ngi wax ci rajo laay waaw fi ma jëm mooy. Euh, lu tax ngeen yor information bu mel nii bu fekkee béton la maanaam information bu wér la te saisiru leen kilifa yi tey ci yoon wala ngeen ngeen wesaare ko ba ñëpp jot ci. wasaare naa ko ba tey xëy na tey jii tey seen rajo yàlla dana dimbali ñëpp dégg ko. wax naa ko du benn du ñaar korek ba ma jógee Italie première réunion ba ñu njëkk a def intérieur fekk ba ma dama leen attaqué ne wax naa ko jëlee dama ko yàgg waxtaan mais léegi lu tax yéen demu leen saisir justice comme yow tey yaa jiite association bi. waaw parce que mënu ma woon saisir justice parce que li tax defuma ko moo di am na ñu jiitu woon mënu ma woon def yenn yi ñu ni dama dañ may jàpp ne dama soxor dama wut leneen ma wut bëgguma dénoncer situation denk nag tey yàlla teg na ma fi la woon day woon ni. kon da ngay dem ci yoon. ba dem ci yoon parce que justice nous sera rendue damay am benn affaire bu grave le Sénégal gay à l'époque qui commandait les y avait un navire français ñu ko le break Atlantique ci sauvetage lañu moo doon seen liggéey pour mu bato suuxee yooyu soixante douze heures après am na ñu ne woon ci bato bi di téléphoné seen waajur yi na leen ñoo ngi dund ñëw leen dimbali ñu ñu le général Gaye lu mu wax sama yoon newu ci il est allé le lendemain di installer un commandant de zone à Saint-Louis kooku il tombe sous le il tombe sous le coup de l'article 49 du code du procédure pénale non assistance à personne à danger kon c'est clair net et précis lu am la lu taxaw la ñëpp xam nañ ko hmm. donc tey jii tey lan na ñuy ne boo mënuñu renflouer bateau bi ñun ñoo bëgg ñun ñoo bëgg de ñoo gaañle ñoo bëgg def suñu dey de quoi cache-t-il l'Union européenne s'était volontaire ne mën lañ ko génne gratuitement pourquoi de quoi lan ñun ñu nëbb yéen la la lan ngeen di xaar ci bi li ñu wëlbatee bato bi d' abord un ça nous permettra que ñu teg ko mu nekk cimetière ñu koy dem di ko di ñaan ak lu munti doon aussi yàlla tey bind na ay doom yi daam ñu wutale am nañu dugg biir suuf te duñu su te sey suuf leen lekk kenn leen laal est ce que amul ñu nekk ci biir bi foofu ba léegi ña nga seen jëmm ba léegi jën lekku leen dara lekku leen waaw am na image yu Ali Aydar musoon a euh, génne ah. euh, ci benn euh, plongée bu mu defoon ñu gis ci hmm. effectivement nit ñu fa desoon mais booba ndox mi gonfleel na leen xëy na ba ñu am melokaan woo xam ni doy na waar boobaak léegi nag hmm. la fa xew kenn xamul waaye yéen waaw yéen peut-être bëgg ngeen ñu wëlbati bateau bi pour ngeen mën a def seen dëy comme ni nga ko waxee mais est-ce jàpp nga ni loolu mooy mooy solution bi lan moo tax kon hmm. état bu Sénégal ba léegi defu ko xam nga dama lay wax beneen secret encore bu dem. Mm. na la e, waa Casamance yi bañ demee ba wàllu suuf. Mm. am na lu ñu wax ni am na lu waroon di xew dañ leen a jiital ci loolu. maanaam. Ah, ah, xam nga ni ma la wax. tuur deret kay Sénégal yàgg na fi. ñu mm. jëm ci ay élection ñuy waajal dara. suuxal ay doomu aadama. mais wala la wala wala mu ngi mu noonu. ñan ñoo wax loolu waa Casamance. man waaw bien sûr. mais loolu la et en réalité pourquoi parce que nit ki boo tel affaire bu leeree nga ni lii kat am na yàlla moo ko indi xam nañ ko mais génne leen ñun ñooy ñooy def suñu dëy pourquoi mu goo ko def. kon sacrifice humain la hmm? ah sacrifice humain très bien je vais pas dire c'est un sacrifice pourquoi o nom de quoi bëgg ñu ko man samay doom laa ci ñàkk. kenn ki amoon na baccalauréat mu waroon inscrire kenn ki c'est un menuisier ébéniste très très très très boo xam ne lépp la xam hmm. donc tey jii tey ngeneen ak ñeneen. GECO am na association boo xam ne ci association bi euh, ñàkk na jabaram ak i doomam yëpp ak ñeneen yooyu association du ñun ñun ñu ñoom ñàkkuñu ma ax la benn affaire korog ba immeuble Tamaru lakkee te Karim Wade nekk fa. ñoq wàdd ndax jël na oto korog lépp loo xam dañuy sowee nit indi nañ ko foofu ay tànkam la dawee pale ba foofu ndax doom joo doom jooju moo gën suñuy ah, doom. waaw la sax. waaw est-ce que doom jooju moo gën suñuy doom ñun. tous les moyens yi mu def noonu mu ko defoon bu ñu respecté woon. Mm. bu ñu respecté woon du boobaa moteur yi kenn du ko colmaté dañ koy changé parce que def na 17 milliards ci avion te avion musul dëgg ñu jël jël kii air bi mm. donc manque de respect noonu donc premier responsable mooy ñu ngi colmaté moteur bi deuxième responsable mooy les autorités à bord du bateau di voyagé ak moom benn bateau moteur bi pan xam nañ bateau bâbord tribord lay tawee waxuñu ko nit ñi nëbbu ko ba ñu paree dugg avion ñëw. et bien des choses qui sont là procureur bi waxoon lool nag bu amoon ci njaboot bu génn ci bato bi di wax loolu mu wax waaw. d'accord léegi état bu Sénégal lan la leen jox comme lay ba tax ne mënuñoo wëlbati euh, bato bi. joxewuñu benn lay dégg ma la wax rek joxewuñu benn lay y a un secret bu ñuy nëbb parce que y a trop de magouille bato bi y avait beaucoup de magouille. bois de lan la ñuy nëbb ci sa xalaat bari na ma ni bois de benn ñu daan dagg. beaucoup de choses de la marchandise frauduleuse yëpp ci bato boobu la doon jaar li ma wax ni xam naa ko waaw les billets la am na ñoo xam sax ña doon jaay billet duñ ko jaay ci biir batu bi lañ koy jaayee. mais léegi loolu est-ce que bu ñu wëlbatee bato bi loolu dina feeñ tey. waa mais pourquoi pas dama lay wax benn affaire. Hmm. yaa ngi fàttali ko xeex bi amul Guinée Bissau te armée sénégalaise demoon intervenir. Hmm. ba ñu paree seen char yeeg seen affaire yeeg yëpp ak na porte lool ba y' plus li lan ñu jë mu jëloon koro ëpp na li la jël muy mooy moo leen jëli woon est-ce que suux na soxna si. Mm-hmm. ndax est que suux na bato bi suuxul de jëli na soldats yi. Mm-hmm. seen i ak ña fa nekk ñëpp la mu yeboon mu ëpp fuuf li bato Diala bi suux yor ko parce que bon le bato étant bon état dañuy ñëw indiwaat yegg si ba jëli leen Guinée-Bissau indi leen. waaw y a une négligence coupable de l'état d'alors te état boobu dama lay wax ni état boobu ba muy am mais Macky ngoon ci biir nguur gi. Mm-hmm. Macky moom ci nguur gi góor Abdoulaye Wade je dois il était ministre des trucs je ne sais pas mais après il a occupé le poste de premier ministre le poste de ministre de l'intérieur yëpp ñoo occupé na ko. d'accord léegi tey bi mu nekkee président yéen lan la digaale ak yéen. Euh, man li ma gën a déplorer moo di. Hmm. d'abord bu ñuy def anniversaire bi fu ñuy def fu ñuy def wootee affaire kër nangam dañ fay dimbal joxe dimbal bu ñuy def anniversaire bi hmm. famille yi yëpp kenn du jot benn dimbal tu dimbal te xam nga da nga wàcce kaamir da am loo def di woo nit ñi ñëw nga jox ay sarax ah, waa saraxe sa kër mais benn ndimbal état bi du ko joxe benn ndimbal ba gën a tuuti ci ay démerde sa bopp yaa xam yaa am na ñoo xam duñ ko def parce que amuñu ko mais jot ngeen ndàmpaay yi ndàmpaay yi maa ngi ki ñëw jot nañ ko hmm. ci loolu c'est point boo xam ne point bu baax a baax maa ngi ci ñëw naa la wax la xew ak la ñu bëgg. Hmm. waaw loolu la. mais est-ce li ngay wax nii mën naa nekk su fekkee dàmp nañ leen ba pare it at mu jot état wëlbatiku di leen jox lu ngeen saraxeeg lu ngeen no non non non waxumuñu ko loolu mais cela veut dire que tey jii calculer ni bu ñuy jógee jël avion. Hmm. def ci ministre des forces armées. Hmm. def ci ay autorités yu bëri avion bu départ Ziguinchor Dakar jëm Ziguinchor ñaata la ci xaalis. nga ni cëpp Ziguinchor def say discours da ngay fanaan yeewu fa ngay dëkk nan nan nan la ci xaalis nga dem def un petit discours jël ay fleurs sànni ci géej gi que loolu loolu respect la voilà la situation léegi yéen lan ngeen bëgg à la place. me mais à la place mooy qu'on soutienne les familles. qu'on les soutienne. waaw mais du jox nañ leen ndàmpaay ba pare est-ce que état tamit. mais oh oh état man dama bëgg wax ñuy wax benn. waaw quand il y a des cérémonies religieuses. Mhm. et chaque année ça day am partout ainsi de suite est-ce que l'État ne vient pas ne soutient pas ces familles religieuses. Mm -hmm. d'accord léegi kon lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg. li ñu bëgg moo di d'abord un nous interpellons le chef de l'État ci benn affaire na ko dañu bëgg mu recevoir ñu comme nañu war di recevoir ñu toog waxtaan échanger. waaw parce que moom recevoir nañu plusieurs fois. bi moom bi muy a toog ba mu ba leen njëkkee recevoir moom lan la digaale ak yéen yan engagement la jël est-ce que dafa engagé woon ne dafay assurer continuité de l'État lépp lu leen président Wade digoon mu mu def ko. wala moom dafa jël yeneen engagement. non non non Mag Macky mag ñoo recevoir. ah d'accord musu recevoir musu leen recevoir. mu àdd wàdd moo ñu fa mu ci recevoir association bi. depuis que en 2012 ba léegi mais recevoir nañu bi mu nekk premier ministre sur les institutions de Wade. moom Macky Sall. waaw recevoir na aussi sur les institutions de Wade le porte-parole Boubacar Ba. parce que Wade moo toog wax ne yéen association bi sonn ngeen lool yéen a ngi dem ak ñëw te amu leen benn moyen seen moyen ngeen di demee. Mhm. il faut ñu jox leen ndimbal. mu jox instruction euh, Macky Sall mu recevoir le porte parole ba am lu ñu échange woon wax ne dana jël telle somme jox destiné ko à l' association ba léegi gis ñu dala ah ba léegi teguñu ci dara beneen bi moo di euh, Macky mu continuité état la recevoir ñu ñu toog waxtaan beneen bi dañu bëgg ne jour bii. comme le 11 septembre gis nga bu mu xewee États-Unis chaque année nañ koy féetee benn kenn du liggéey ñëpp dañuy fàttali ko ñu génn àddina mais ñu def ko férié lan moo empêche ñu def ko férié pour que nit ñi fàttaliku ne catastrophe bi gën a rëy ci àddina bu àddina bi am Sénégal la xew. Hmm. te lii moo ko waral. lu ñu def ba mun ko def tey jii tey le vingt six décembre heureusement que bi yoon màggalu Touba la tasel. nit ñi sax dañ da de l'occasion ne ñu dem Touba di màggali. Hmm. ak sëñ Mountakha ci ñaan fàtte ñi ñi nga xam ne jiitu nañu àllaaxira ci ja batalo Joola. Hmm. parce que dafa yemboo tey. loolu c'est extrêmement important di tax duñ ko férié di tax duñ ko duñ ko def mu férié. au nom de quoi ah ah loolu mooy bu lay problème bi beneen bi mooy nous demandons le renflouement du bateau on insiste beneen bi mooy nous voulons que justice nous soit rendue parce que on va saisir l'autorité parce que classer les dossiers ils ont fait euh, France duggoon na pour def loolu mais on sait après qu'il y a une pression boo xam ne moo tax ñu déclassifié ko ne dañ koy de côté mais il y a bien des responsables qui sont là qui le cherchent le ministre des Forces armées d'alors le ministre des Transports le général qui était et tant d'autres tout ce qui avait vendu le de Bili ñoom ñëpp c'est des responsables ñu colmaté bateau bi sans changer le moteur c'est des responsables ils sont là on les connaît xam nañ bu baax mhm. donc bu ñu wax kenn le commandant du bateau est responsable il n'est pas responsable parce que au moins lui il a eu le courage dem na mënoon a dem yoon di xaar ci hmm. régime bi fi nekk mooy plus de considération d'abord ni mag ni wàdd sànne woon orphelin majeur yi pendant bi ñu bato bi suulee euh, suuxee Macky jël na leen en charge dañ ma ko wax de amaguma confirmation bi loolu am na. Mm. def na déjà jël na leen en charge beneen bi étudiants yi tout récemment def nañ déclaration mais qu'on les en charge par nañ seen jànk yi on avait promis qu'on les en compte parce que dañu war a dimbali seen i ñoñ te ils sont ils sont à à donc dañ ko dañ ko dañ leen war a jël en compte mémorial Wade ba mu defee cause première pièce Ndakaaru ba léegi benn feer benn xeer jógu fa Ziguinchor ba léegi mënuñu ko yeggal Eiffage moo affaire bi mais loolu considération respect la te ñuy def ay milliards du ko investir n'importe où n'importe comment ci fàtte loolu te ñoom war ko def le mm-hmm. mémoire xam ne yéen. mémorial du Joola mais da ciy def turu gaa yëpp. Mm-hmm. turu ñi génn àddina yëpp. Mm-hmm. waaw turu ga ñëpp tek ko bo sookul def boo xam ne ku ñëw xam ne lii kat xewoon na fi cité les noms ak ñëpp non et pare non ñëpp mais loolu mais loolu déjà ku ñëw déjà boo ñëwee sax au Sénégal def ci turit boo ñëwee nga xam ne lii moo xew loolu mais nga nga nga nga nga na nasaxal ko teg ko de côté mel comme si de rien soxna si damay wax ni man de yàllaa ma teg ci fii xam ma nag mais la fa xewoon dana soppi parce que mag yi dootuñu ko nangu dootuñu ndax kenn du duñu nangu kenn di jaay suñu ñi ñi ñi ñàkk seen njaboot ci batuloo Joola di leen jëndee lu mu buntu doon d'accorduñ ci danni nañu def li yoon teg li yoon beneen bi mooy indemnisation bi nga wax waaw vingt milliards la joxe woon vingt milliards yi mu joxe ñi euh, ñi si war a jot yëpp jot nañu mais ba mu ba mu paree des na six milliards quatorze milliards moo ci génn indemnisation bi jeex mu des six milliards li mu milliards la waaw mu nekk ñaata la am njaboot bu nekk ku na am na dix millions même rescapés yi am na dix million parce que à l'époque on dañu bëggoon jox rescapés yi tuuti ñun ñoo wax àddina ko njàllaa leen ba rëccal hmm. yem ñoom ak ñi ñi dem ñëpp ñoo yem ku na dix millions nga jot hmm. donc mu bañ ko paree mu des six milliards quatorze milliards moo dem hmm. six milliards nag ñu ci benn compte ñu ngi ci ay compte ñu xam ah numéro compte yëpp maa ngi moom compte kan la nekk compte kii bi rek compte moo ko dugal ci compte ay compte ban compte la ko dugal. non non vraiment je je pareeg moom mais je pour ay compte particulier la wala compte ay famille victime non non compte bancaire du particulier. bancaire d'accord état moo denc xaalis bi. moo ko les six milliards. d'accord waaw depuis dix neuf ans ñu ngi foofu ci compte yi yow numéro de compte yëpp ngi noonu mais xaalis boobu vingt milliards yi génn c'est pour les familles des victimes c'est pas pour l'État l'État l'a sorti pour nous. donc bu li tax ñu koy denc nous demandons et interpellons le le président de la République di interpeller le ministre des forces armées que ni loolu nañ ko génne ñu jox ko njaboot ji ba pare mu ñu mën ci def suñu fondation. parce que xaalis boobu mi ngi fa ba léegi ak fi réew mi tolloog na moom non non non non a ah. vérifié l'argent ay sur mu nga ba léegi. ma nga fa ba tey. waaw je comprends waaw les six milliards sont bien. con mais lu tax boobaak léegi waxu leen ci. non mais dégloo li ma man deuxième vice président woon. mën naa wax ak ki fi ne woon. Hmm. mais est-ce que dana ko yeggee déedéet mais mënu moon tëb di wax di ko di wax loo xam ni du yoon. Hmm. donc tey yàllaa ma fi teg damay wax ñëpp dégg. loolu laa bëgg ma xam ne dama wax ñëpp dégg parce que yemuma ci rek président d'association actuellement mais maay coordinateur des familles qui ont des victimes dans Thiès et département parce que Thiès rek compte na 66 familles victimes du naufrage du bateau du waaw donc loolu ñuy wax tey ne xaalis boobu famille des jola vingt milliards yi dañ ko génne parce que mm, soxna si mag yu bi jaar ci ci ci affaire bi bi ñuy jaba débuté yi euh, ki yoroon la en charge de la solidarité nationale li mu yore li mu encaissé ci xaalis kenn xamul nu mu toll mais kenn kenn gisu ko. fu xaalis ba jógee. kër diine yi. Hmm. soutien yi fu ne duggee na fa. ñun on a fait une tournée spéciale kër diine bu ne teg fa dem nañ Ndiassane dem nañ Thiam seen Abdoul Aziz Al Amin moo ñu recevoir dem nañu Touba dem nañu partout les gens on ont, ont donné beaucoup d' argent directement au ministre de la Fédéralité en soutien ak d' volontaires mais ana xaalis boobu. ana xaalis ah, boobu ah est-ce que du état moom la boole moo tali ko. vingt milliards yi mu leen bokkul bokkul bokkul. bokkul dara bokkul que c'est un budget spécial milliards pour indemniser hmm. bokkul. donc y a des gens qui sont enrichis de xamu leen fu mu jaar. xamuñu fu mu jaar il des gens qui sont enrichis sur ça am na ñoo xam ne ils se sur ça lu leer laa la wax lu leer laa la wax aides yi dafa daawuloon jaar ci man j'étais à Thiès pardon des coordinateurs mais les aides qui venaient ne passaient pas à moi duñu ko jaar dañu may woor rek informé lii ñëw na wool famille yi nañ koy joxe xaw ma hmm. xaw ma donc tey la woon day woon ni tey di fàttaliku aussi ne. ah ñun lu métti moo ñu dal daloon nañu muñ nañ ko yàlla tey jii ñu ngi muñ ba léegi bien que na ñu gisaat suñu njaboot ñu toog ak ñun yàlla ko demee noonu di wax sénégalais yi nañu xalaat seen bopp nañu xalaat comportement yi parce que tey boo gisee accident a circulation yi ni ñu bëree di ko di koy def surnombre yi parce que tout simplement batuloo Joola yeewul kenn nu muy yee mooy nit bu yee état bu yee dafa war ne lii amoon na fi doot fi am ñu def jour férié di fàttaliku nit ñi mais loolu yëpp amul état du Sénégal aussi na xam ni ñun dañoo ñàkk aussi war na wax fàttaliku ñooñu di leen téye di leen soutenir mm. di fàttaliku di leen fàttaliku mais du toog rek at ba at benn yoon lañ lay wax ci ñoom loolu moo fiy jógee parce que na yéene te jël naa décision bi ne tous les trois ñetti weer yu ne ba ba ñu yegg beneen bi naa dem ci rajo bu mel ne yow beneen rajo wax ñëpp dégg ne li woon nag day wan ni du yegg lañ bëgg nañ ñu fàttaliku waaw parce que mu ñëw ñu fi rek pour benn yoon ñu wax ko bu fekkoon sax dañ koy wax ah, dañ koy def férié ñëpp xam ko mais dañ négligence boobu la ñu war a teg nañu war ko teg de côté nag de euh, franchement maa ngi lay déglu ci beneen question boo bëgg waaw. tey yéen euh, lan mooy seen taxawaay yéen association bi. lan mooy seen euh, mbébét. sàkkuteef bi mooy xam nga ki fi yàlla teg moom la fi yàlla teg ñu teguñu ko fi yàlla ko fi teg waaw yàlla moo ni namm ne Macky mooy jiite réew mi ñu nangu ko parce que mooy kilifa réew mi dañ koy déggalit teg ci waaw duñ ko dég dañ koy déggal bu baax a baax parce que yàlla ko fi teg. ñun dañu bëgg mu ñu toog ak moom parce que toog ak moom ñu jéew na ko lii ak lii mooy suñu métit lii ak lii la ñu bëgg waaw loolu la bëgg parce que dafa ñu ko war a defal Wade defal nañu ko bu sax benn yoon Wade recevoir na porte-parole bi plusieurs fois ainsi de suite ainsi de suite donc tey aussi ñun dañu bëgg toog amatul distinguo euh, association bi yemul Ndakaaru yemul Ziguinchor yemul Thiès Sénégal yëpp la ëmb Fatimata Wan mooy trésorier bi ma nga Saint-Louis ak ñeneen ñeneen ñeneen xaali ndaw ma nga Jurbel ñu bëri ñu ngi fii donc yamul ci ñun dañu bëgg mu toog ñu toog moom waxtaan ak moom ñu échanger xamal ko li ñu bëgg xamal ko ni d'abord un jour bi dañu bëgg saa yu teen nekk jour férié ñëpp ñu fàttaliku beneen bi mooy wut na wut pexe bu mu renflouer la bat ñun ñoo ko soxla beneen bi na yeggale mémorial yi Ziguinchor Dakar. beneen bi mooy nañu génneel suñu six milliards yi moom dañ ko ittewoo soxla ko parce que famille yi ñoo ko moom vingt milliards yi ça n'appartient génne nañ ko bon la boo xam ne ñun ñoo ko moom mi ngi dans des comptes et on sait que nga fa ba léegi pour ñu mën a teg en jour à jour suñu fondation ba pare xittaliwaat borom njaboot euh, famille yi nga xam ne ñu ngi ci coono bu méttee métti parce que ku yaakaaroon benn doom wala ñaar boo xam ne jàng na je connais une des familles yoo xam ne euh, ñii ay docteur la ñu woon dem wala dem application del si génn àddina ñu bëree bëri donc ñooñu aussi dañuy war a soutenir di wax état bi mais lan moo koy coûter ne bu ñuy bu ñuy bu ñu le fond du Covid da ba mu amee génn wuñ mille milliards parce que feebar moo fi am feebar bi dalul ñëpp mais am na ñu ñu dim dimbali jox dara waa tey pourquoi qu'est-ce qui empêche à l'état du Sénégal que ni bu ñu anniversaire bi mais mu am lu mu njëkk ci tuut sax ñu séddale ko ñooñu ne jàpp leen ci lii dem leen nga def ko sarax ak yéen mais loolu lu baax la waa oubli boobu nag moo warte ñun loolu lañ dul nangu loolu lañ bëgg état du Sénégal def ko et en le président et le ministre des forces armées loolu c'est important loolu d'accord gis nañu tamit yeneen association euh, yuy euh, ne dañoo ëmb njabootu ñu loru ci suux bi loolu mooy kon da ngeen a tasaaroo lu tax tey mënu leen def benn say bu dëgër nga xam ni xëy na da ngeen di xàccandoo dóorandoo yëf yi du ñàkk mu gën a euh, njeexital non non non tasaaroo wuñu début bi sama début waxtaan la ni mm. ba mu bi suuxee mm-hmm. am na benn association bu jógoon di di di di protester bu baax hmm. di marche empêcher yenn yi di attaquer di wax ci la di tiitee déggoo wax naa la dafa tiit hmm. ba mu tiitee ci la mettre à jour l' association là. kon moo ko taxawal. moo ko taxawal le en 2003. en 2003 la ko taxaw nan la da leen a woo dajale leen. ma yaakaaroon ne yéen ah, jël seen initiative. boppam na ba mu ba mu wootee. Euh, le maire de Dalifort sax xam nga ñoom moo moo doon presque moo doon. diriger benn as l' autre association terrain woon yàlla na ko yàlla yërëm xaar ko àjjana. Mm-hmm. c' grand combattant il s' est beaucoup battu. mais ba mu tiitee la woote réunion. mais am na ñoo xam ni ñëwuñu mais ñun fekki nañ ko dem déggoo ma ni réunion boobu Abdou Fall ministre des forces armées. général Mamadou Niang Aïda Mbodj ñooñ ñëpp ñoo fa toogoon bañ koy teg donc récépissé bi yëpp am nañ ko donc c' est l' association parce que association mën na am mais c' est l' association reconnue par l' état du Sénégal waaw hmm. nañu il faut que ça soit clair c' est l' association reconnue par l' état du Sénégal parce que saa ñuy dem Ziguinchor pour faire am euh, mémorial bi euh, pour faire euh, pour fàttaliku génn tuuxu battalo Joola bi Moussa Sakho était là-bas moo doon président c'est lui qui faisait le discours donc donc suivre tey ji tey wax naa Boubacar Ba ko man du ma mën a déplacer wu ñëw Ziguinchor mais na jël sama place représenter les familles xam tant naa ko qu'il change de discours ma newuñu fi pour raay raayal wala quoi qu'il en soit il faut qu'on dise ce que nous voulons ce que nous inspirons que bu état bi defal ñu ko que vraiment raay raay bi na doñ la woon daal day changer de discours bi nga wax. changer de discours moo di dañ fi newoon di di màggu yi rek cela veut dire famille yi xamuñu lu xew yëguñu xamuñu lu xew ñoom ñu ngi dekk seen biir ñoom ñaar rek la ñu ne Abdoulaye Wade ñaar rek la doon waxal yàlla ko yàlla yërëm jégalu xaraajam Abdourahmane Tine ah Sawla Moussa Sokho Boubacar Ba waaw pose première pierre bi passé mais bi ñu doon def euh, mémorial de Joola bi Abdoulaye dem de pose première à Dakar mais taxaw waat di jël parole Boubacar bu ñu ko jegee mënu koy eh, pour ma tuuti parce que man recevoir naa la plus de quinze fois plus de quinze fois ñun yëguñu naka la ko recevoir ak pourquoi mu recevoir ko ak lu mu ko doon wax dem waaw wax ko ki euh, attaque bi attaque bi da am na ba ñu jógee ci loolu attaqué nañu sax ci dans un journal ne c'est des magouilleurs qui sont là qui man maa ko tontu na ko pas un corrompu. waaw ndax dañ leen di accusé ne yëf yi ko bëgg a def fond de commerce. wa de ko jo ma attaqué na ko je ne suis pas un corrompu man je n'ai jamais été reçu par Wade Wade musuma jox un franc si ne indemnisation sax laalu ma sama soxna laa ko jox na ko yaa moom yaa jur doom yi un franc lekk ma wax ne ko ma ne ko je suis un fonctionnaire retraité eh, maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax attaqué ko ma ne ko si c'est le corrompu c'est vous qui parce que local bi bi bi bi association bi ñu ko occupé Ziguinchor yaa leen ko joxoon da leen jël ma may la mais bi ñu de ba nga amee da nga bëgg lekk ci xaalis bu dul jeex da nga ko nanguwaat ci ñoom. Hmm. je l'ai dit la wax ji jeex. je dis encore moo tax ma la woon wonni parce que man je suis libre ku ma woo ma wuyu la te doo nangam ji wala nangam ji c'est net et lu leer laa wax un franc bu indemnisation bi amul lu ma teg loolu loolu loolu la. te dama wax au début ñun on a été vaillant parce que dañu ko defal li la nga bëgg. et on savait ban fay dem ne ku ne cinquante millions nga waroon recevoir donc bu jëlee décision ñu ne ko jëlal mais am nañu droit ne rendre nous justice il faut que ñi responsable yi Cette justice qui a été rendue par l'ancien procureur qui était d'alors, c'est une justice sous te duñ ko nangu le renflouement ñun ñoo ko sollicité am nañ ci droit le mémorial du Joola du tabax Ziguinchor benn Dakar benn am nañ ci droit pour ñu ni fa fàttaliku ñu ni ñàkk loolu am nañ ci droit la fondation du Joola mais on a des fondations les gens bonne volonté am xaalis ñu ngi def fondation pour dimbali nit ñi ñun nag pour soutenir ces familles là qui sont dans le besoin ñu def suñu fondation boo xam ni ay bonne volonté la dimbali ak feneen ñu mën a solliciter des pour dimbali les familles da am nañ ci droit kooku xam na am na am nañ droit ci loolu mm-hmm. l' bi nga xam dañu ko jox mu des six milliards yi mais ñu ñoo ko moom am nañ droit ñu jox ñu ko waaw kilifa réew mi nag association bu nekk dafay recevoir ay nit mu ngi recevoir ñoo xam ne newuñu ci dara mais kon ñun bu ñu nekk une association soutenir leen parce que leen soutenir à l' époque parce que bu wax ji bu teeree ba yëpp ñoo tax parce que bu ñu demuloon wuyu ji affaire mooy doñ ñun ñoo def tournée seet chef religieux yi xamal leen ne ñun la te jàmm rek lañ bëgg ñun ñoo ko def dañu def tournée bi on a xalifa généraux yëpp seet nañ leen korok en 2003 waaw kon boog ñun tey dañu war a jox respect ak considération loolu la ñu sàkku te dafa war a am jàpp yu pas y avoir doubli dañu war a fàttaliku di ñu xool te jour bi ñu def ko jour férié on tient à ça. waaw sànq yaa ngi yaa ah. wax ne sénégalais yi dafa hmm. mel ni euh, jëluñu euh, leçon ci lexewoon ci Joola. Euh, lan nga jàpp ni moo waral tey ba léegi nit ñu wéy di bàyyeeku di def ay mbir yoo xam ni dafay continuer di ñu lor surtout ci tali bi nekkoon nga alkaati daan taxaw ci tali bi. Euh, mm-hmm. fan la faay amee est-ce que ci euh, état la force de sécurité yi war a xëy na teg yenn mesures yi wala askan wi ci boppam moo xaw a xëy na doyadal daal lépp loo xam ni mën na ko ju loral loraange. xam nga avant bateau Joola di ñëw sax dafa am lu xew li xew moo di si tàngu régime Diouf la. parce que bi ñuy ñëw police ñun contravention de police yi contravention laa wax en gros vingt quatre mille la doon tàmbalee douze mille six mille trois mille huit mille cinq cent huit cent su la pression des transporteurs Abdoulaye Abdou Diouf wàññi ko ba def ko ba mu yegg six mille camion bi tey loolu am ba léegi de bu yebee chargement débordant su xëyee suba fay contravention six mille six mille midi la ko fay gan ñamul droit amul droit jàpp ko ba ba ëllëg si ci midi bu yeggee am na chance boobu c'est une négligence pour wér loolu beneen bi mooy comment peux-tu imaginer oto bay daw quarante deux ans Senghor bi ñëw fi rapide ndondi la fi ñëw mu jox ko Guinée yi car rapide ñaata at la am les sept places oto yu bëri di daw plus de quarante deux ans camions yi am fi ay ay chose presque ay cinquante neuf ans cinquante huit ans te saa yoo leen contrôlé ñu am visite technique te quand on parle de on ne parle que des policiers mais fu ñu jëlee visite technique mais ñoo ñoo war a garer pour assurer les kii te sanctions yi sévères ñu xoolaat aussi euh, auto école yi ni joxe permis de conduire yi c'est du n'importe quoi donc loolu aussi mooy négligence beneen bi yàlla won nu ne lii moo war a am bateau le Joola suux parce que y avait surcharge je le reconnais non seulement surcharge de personne surcharge de bagage yëpp ngi woon ci biir waaw négligence aussi am ci parce que moteur bu ñu a soppi ñu dindi ko dindiwuñ ko loolu ma xam ci oto wala changé am moteur defoo ko ba ainsi de suite waaw ñu rakk ñu koy rafistole léegi njaganjaay laa lu lu leen laal ñu ñu ñu suux parce que dañ ko rafistole partout donc loolu aussi yëpp c'est négligence de l'État du Sénégal un État doit être puissant et fort soo waxee nga wax ne lii mooy am lii mooy am car rapide jëlee ko fi yomb la cette place yomb la joxe instruction de service des mines mais léegi ñu changé leen amul dialogue donc o état doit être fort donc Sénégal yi ñoo dekk leen neex on les laisse faire ku jóg ne alkaati bi il est le corrompu àndar mi nangam nangam te ñi gën a sàcc xaas bi gis nañ leen ñu ngi leen di fii di xam duñ ko wax. tey Sénégal doo ñëwee Dakar tata yi tey dañuy surcharge ba ba ba ba nga xam ne da ngay tiit sax yow ñu toog leen di xool wadd à l'époque may leen ne bu leen kenn jàpp mën nañu surnom comme lu mu leen neexee waaw. jour bii jour boo xam ne dañ le vingt six ñu duñ seen yoon new ci on laisse tout le monde vaquer à leurs besoins duñ ko sax ñu ci xam ne bateau la Joola seen yoon new ci mais loolu c'est une aberration loolu war moo war di responsabilité mu dellu buum ca booy booy ba les contraventions de vingt quatre mille na dellu si na dellu si lépp lépp point ka ñaata loolu lañ ko kan kan lañ ko waxoon ba léegi ko car rapide Ndiaga Ndiaye sept places yi di daw léegi ñu gaari sa oto mais pourquoi ñu leen bàyyi ci leen nag jël jàpp place jëm caawoon nga seet da ngay da nga yaakaar ne balaa ngaa balaa ngaa yegg caan oto bi suux waaw donc donc wala la situation loolu mooy affaire bi yëpp noonu. tey yow en tant alkaati tey yow boo amoon conseil booy jox euh, askan wi de manière général lan lay doon. li moo di nañu xam ne ñoom ñooy yore seen bakkan nañu xam ne bu ñuy dugg ci oto bi nañu xam ban oto la ñuy dugg ndax oto bi wóor na nañu xam ne aussi bu ñu nangu ñu surnombre leen. buñ ko naree def nañu bañ jar na jaral ñu wàcc loolu nañu xool aussi oto bi jumtuwaay yi parce que oto yu bëree ngi daw transport en commun seen pneu yi benn baaxu ci donc yooyu dañ ko war a xool di xool ni ñoom seen bakkan la ñuy demee te ñoom xaas rek la ñu waaw màggal daa ngi ñëw tey ji tey njëkkanti bi rek moo fi am dama ko ñëw nañu am fulla ne bu ñu yéegee bi ku war a daw lu dul yoon wala ngay def yenn yu yoon nga taxaw na ko nii du fi amee waaw c'est important parce que loolu mooy yoon dem ndànk ñëw daw ndànk yegg yegg yow ñeeku lu ci ne sa wërsëg ngay jot donc askan yi ñoo war a gérer seen biir mais bu ñu yàkkamti parce que sëñ Tuubaa tax ñu jog dem di màggali di seeti di jaare ji eh, moom ni mu ko sant ni mu ko waxee sant leen ñëw leen bés bi sant leen ma yàlla ni ma mayee bëgg ma paagaal yóbbu ma mu dellu si ma ci bakkan bu teey kooku nag la mu santaane nañ ko def bu ñu nangu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu nangu vraiment que eh, chauffeur yi den den jël di leen profité ci occasion boobu nañu dañu tey dem yegg ñaan yàlla yàlla nangu incha allah loolu mooy problème mm. c' conseil que je vous alkaati aussi ak gendarmerie ah, nañu tey nañu xam ne bés bu desu diine la bés boo xam ne aussi nañu jéggale di seet na ku ñu war a jox conseil jox ko bu ñu gisee oto bu du nekkul yoon aussi nga xam ne pneu baaxul nañ ko gaare camion buy daaw amul triangle de présignalisation bu wóor ne ëllëg day pan fenn nañ ko ni ma nañu jël ay ndëraan yoo xam dañuy def ci mbedd mi bu ñu gisee oto oto camion bu paan ci angle wala ñu mën ko diri mu gaare bu baax dañ lépp ni occasion accident yi en tout cas daal conseil boobu laay jox nit ñi eh, di leen ñaanal yàlla bu ñu yeggee aussi bu ñu fàtte ñun ne ñàkkoon nañu ay doomi aadama ci batalo Joola ci biir ñaan yi ñu boole ñu ci yàlla yàggale ñu ay déwén yu bëri waaw naa ah. euh, Cheikhouna Keita ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, di la bàyyi rek nga tàggoo ak ñi lay déglu waaw maa ngi lay sant encore di sant réew mi FM di la yow soxna si yow ku baax nga parce que xam naa la bu baax tasa ñëw nga bëggee jaway jël si ma rajo bi rajo bu ñëpp askan bi la rajo askan bi laa waaye moom dañ koy déglu di leen ñaanal yàlla yéen ñi fi nekk ak borom kii bi yàlla na yàlla gën a yëkk ci rajo bi euh, ba télévision nekk fa ak yëpp ñu ngi koy ñaan subhanahu wa taala jomb na ko di leen sant bu baax di wax ni man de doomu aadama laa yàgg yàgg damay génn àddina ñaan yàlla gudd fan ak wér euh, ndaw laay ñaan di wax aussi famille Batolo Joola ah nañu dellu kóolite ci man incha allah lépp lu war ci xeex ba am li ñu war a am incha allah danaa ko def parce que looloo tax ma ne néew ma fi nag pour jaay leen pour am intérêt pour jël ci yéen dara ñëw ma fi pour ci million pour ci ñoom déedéet maa ngi sant yàlla parce que alal ju lew laa bëgg li am lew la incha allah lépp lu ñu war am dañ ko am dañ ko xeex dañ ci def lu ñu war di encore une fois de plus di wax ni eh, Sénégal yëpp laay woo imaam yi ci jàkka yi ci jumaa le septembre waaye bu ñu kenn fàtte waaye ñaanal leen ñi suñu ñi génn àddina ñaanal leen ñi génn àddina yàlla xar leen àddina ña xam leen ña nga àddina parce que yàllaa ko wax te yàlla lu mu wax waaw tudd mm. ku dee ci ndox te xar woo àddina nga jëm donc ñu gërëm ko bu baax a baax euh, Cheikhouna Keita jiite association bi nga xam ne tey moo ëmb njabootu ñuy loru ci bateau jola ñu déglu nag euh, beneen témoignage yu euh, Ndeye Dramé ñàkk ñett ci ay doomam nekkoon soxna ndem si yàlla Idrissa Diallo ci waxtaan woo xam ni euh, sekkoon na ko ak suñuy naataango yu groupe Futur Média. bateau la Joola bi muy am le 26 septembre 2002 dafa fekkoon a nekkoon États-Unis Atlanta. léegi ñun dañoo doon dem rejoindre comme ak xale yi. léegi ku mag ki année boobu la am befemam moom moo judd en 87 il venait tout juste de boucler ses 15 ans. léegi ma ne euh, Diallo xaaral parce que dañu nar a dem xam naa suñuy dem ci biir année scolaire bi lay doon ça fait l'occasion ñu dem seeti sa yaay Ziguinchor mu ne ma waa noonu baax na ma nar a àndoon ak ñoom mais ma am yi ma doon lijjante pareegul ma ne xaaral ñoom ñu jiitu ma ma woo grand grand euh, euh, grand frère ci ki mu topp doom ji aussi moo sama taaw bi ñoo maase woon. bu mu yëgee ne xale yi dañuy dem Ziguinchor mu ne ma doo woo sama papa pour ma ànd ak ñoom ma woo papa mu ne ma ku ñuy àndal ma ne ko man la ñu naroon àndal mais man damay xaar dama am yeneen lijjante après suñuy ñëw man maa leen di jëli ji ci la ñu préparé wu temps boobu bato bi dafa paanoon ñu jaaree par Tamba bi ñuy dem ñoom ñett ak doomu Magu Diallo bi muy ñoom ñeent bi ñu demee mu des une semaine euh, ñu def quinze jours semaine bi ñu nar a ñëw quatre jours avant man a xaaral ma jëli ji leen seet waale maire bi. Mhm. ma léttu ba pare ba pare pour dem. suba teel nii benn jour ma naroon dem jàlloo na ma c'est pas la peine ngay dem wool sama yaay rek xale yu ñëw parce que xam naa ne yow bëggoo dem noonu ka Ziguinchor loxo neen te temps yi euh, euh, puisque ci biir année scolaire bi ngeen di ñëw. damay obligé jën yónnee la fin du mois su ma lay yónnee xaalisu dépense bi yónnee la une somme nga jëndal leen quelques yére en attendant Euh, ngeen di ñëw daal pour ñu pré ouverture ko le temps ngeen di ñëw noonu nee na ma jënd naa mais euh, euh, xuma mooy président sénégalais d'Amérique yi mu nee na ma nee na conteneur am bi feesul donc après lay ñëw après la bagage yi di yegg si daal léegi pour le moment te yow bëggoo dem loxo neen léegi wal sama yaay rek xale yi ñëw noonu ma woo bi pour xale yi ñëw ma xëy la matin na xaaral ma jëli ci xale yi mais guddi bi yëpp nelawuma mu mel ni dama ko doon sentir ma yeewu suba teel rek di dem port pour jëli jëleen may dem sama jànq bi na ma lu ñuy togg añ ma ne ko seetal li xale yi gën a bëgg rek nga toggalee yow xam yaa gën a xam seen plat préféré. noonu ma génn ma dem poor bi ma yeggee rek ma fekk ay barrière ay gendarme militaire ñu def ay barrière foofu ba ma yegsee sama fit bi na rës ma ñëw ma ne femme ñi taxawoon foofu même ñi di jaay sax nanguñu kenn dugg jour boobu ma ne li xew fii mbaa jàmm ñu ne ma bato bi moo tardé tey moom nanguñu kenn dugg. ñoom yëgoon nañ ko mais nit ñi yëgaguñu ko. léegi nag bi ma yeggee mais man puisque ay xale lañu te dañu yoroon ay yóbbante ma ne xaaral ma teel a dem sinon suñu génnee gisuñu ma dañuy jaxasoo daal. ay 6 heures laa fi hmm, jógee waaw ay 6 hmm. laa fi jógee pour dem. que su bato bi yegsee duñu ubbi dañuy bàyyi ba mu commencé leer ñu bàyyi nit ñi génn. bi ma demee nag noonu ma taxaw di xaar di xaar. affaire bi xamatuma li muy nuru daal moo taxawee ci sonnee ci taxaw bi ma dem wéeru fenn am embarcadère noonu am fu ma wéeru man daal am ma grande surprise dama jékki-jékki rek gis benn kiwu wal fajiri boobu seen générique boobu benn xale bu góor bu yore rajo nii di déglu ma jéggi mu naan c'est pas possible ma jékki-jékki dégg ay yuuxu xaw ma li ma dina sama tànk yi dee fi ma taxaw mais nag mënuma woon xalaat loolu bi ma jege see grand bi ma ne ko grand li xew mun ma bato la joolaa ñu ne moo suux bi ma taxaw sama tànk yi dama doon dama doon tremble xale bu góor bi téye ma mën a ma lan la mën ne ko genné kat kat fekk maa ngi naan sama ñetti doom yi ak ko ko jàllo doom pap jàllo bi ko téye ma mu ne ma àndal ak dal am nga seen numéro numéro boo mën a woote ñu dugg ci télécentre bi gaaw pour ma woote suñu waa kër jëppal sama yaay mais numéro bi sax réer na ma bi mu ñëwee mu wax ak borom télécentre bi kooku may ma euh, pour mu dugg woote ma ànd ak moom ku baax su su mu composé mën ma numéro bi baaxul suñu numéro réer ma ci instant bi mais ma na ko may ma tuuti rek ma xaw a dal après ci la numéro bi ñëw ma woote ma jot sama petite sœur ma ne ko ani sama yaay mu ne ma mu ngi nii mbaa jàmm ma ne ko du xam nga sama yaay dafa amee tension ma ne ko balaa muy jekkaliku nañu jàpp gëm yàlla rek xam ni euh, euh, nouvelle bu neexul laa lay wax boobu yëpp yàlla ak ma wàccee courage boo xam ne man sax xaw ma ba léegi mu ma li xew noonu man ne ko sama yaay sore na la mu ma waa mu ngi côté bee ma ne ko bul waxagum dara sama yaay parce que amagul leeragul dama ko dégg léegi ni dama jël sa woon xale yi embarcadère ñu ne bateau bi dafa suux te ñoom junior ñu ngi ci biir sama sœur bi ma dégg mu yuux sànni téléphone bi noonu laa toog ma ko ñëw leen man rek maa nekk fii gisuma kenn daal après nag ci la suñu wax kër ñoo fekk sama embarcadère léegi bi ñu ñëwee ma ne leen xaaral ma dem woo jàllu télécentre bi wax ko ñu ne ma déedéet fekk grand frère bi ñëw na kër ga pour seet si pour jël si doom ji Euh, ma woote kër ga man ne sama bon bi ne mu ñëw embarcadère mu jël suñu benn yoon parce que dafa nekk congé parce que ne nañ bato bi dafa tardé te xale yi dañu yor ay bagage comme ça mu wàññil ñu charge kooku bi muy yegg si ak bi may yëg nouvelle ma ne ko Pape Diallo une mauvaise nouvelle mu ne ma li xew ma ne ko ah, nee nañ bato bi dafa suux mu ne ma waaye danga xam li suux li chaviré bàyyi li ngay wax waaye mu avancé ci laa taxaw ci otoom jël vitre bi yëkkati ko boobu yëpp maa ngi ànd ak dal ba suñu waa kër bi ñu ñëwee sama yaay bi ñu yegsee rek moom daanu ci goudron bi foofu évanouir mhm. après bi mu jógee la ko gendarme bi ne yan su ngeen defee ni kii jur doom yi ni mu war a def sama yaay su ma xoolee ne ma ndey nga ne ane xale yi rek mu kiyaat jur boobu sax defe naa day dee waaye léegi su ma ne damay dem ay bàyyi leen ma ma woo ko mu meloon nag doomam yi ni mu koy yëgee du neex daal bàyyi leen su ma kiyee ñu téye ma ci lañ ma yóbbu nag suñu kër jëppal suñu waa kër yëpp nekk embarcadère ni dañuy xaar mais suñ ma yóbboo rek ma jëlaat taxi ñoo fekk si leen def naa ko à trois reprises collègue am yi nekkoon port ñoom ñëpp ñëpp ñoo fekk si ma port ñëpp ñoom ñëpp ñu ñëw jour boobu sax seen amicale des cadres dañu waroon a dem Saly dañ ko mujj fomm na la man maa woote boobu yëpp man maa jël sama kii woote bay laa. ñu ne ma dafa génn ma ne ko su ñëwee ngeen ko mu ñëw po ñu ñëw port maa ngi nii man kenn maa fi nekk woo naa suñu waa kër yeeg seeguñu xale yi dañu des ci bato bi. mais keroog waa port vraiment dañ euh, ma taxawu daal ñoom ñëpp ñëw mais suñ ma dellu kër ga ma dellu sawaat ñëw poor ba noonu le mercredi Diallo aussitôt mu rangé bagage finalement rakkam bi nekk Washington moo ko mujj woo nee ne woo na ko ay deux reprises su ko woowee ne ko gëj nga dégg xale yi mu ne ko sànq ci suba rek maa ngi wax ak ndey ci fajar bi mu ne dafay jëli ci ni xale yi poor mais xam naa ay dix heures yooyu dinaa wootewaat pour wax ak ñoom nee na deuxième fois Ali woowaat ko frère frère bi nekk Washington troisième fois bi frère bi ne na gëmm rek c'est un croyant na ko ko wax benn yoon daal. après ci la ko woo ne ko neex na ba neexul mais il paraît que xale yi dañ doon nibbisee bato bi chaviré noonu la ranger bagage am yi gaaw ñëw mais vol mënul woon am. bi mu fi yegg si c'était le vendredi mais mercredi bi la mujj dellu par air Portugal parce que vol yëpp a feesoon mu ñëw tam keroog c'était très dur kay bi ma toogee deux jours trois ma xam ne ndox kenn mënu fa nekk ay heure ci laa jàpp ci yàlla ñu bàyyi ma suñu kër jëppal fa la nit ñi doon ñëw di jaale si chaque nit ñi di ñëw ku mag ki ànd boobu la doon soog a am befemam xale yi intelligent woon ñu ngi woon cathédrale ñoom ñëpp seen papa dafa investir woon ci ñoom mu nekkoon ay kàddu yu ndey Dramé nekkoon soxna ci euh, ndem si yàlla Idrissa Diallo euh, kon mbokk yi ci euh, témoignage bu tiis boobu la ñuy jeexalee démb ak tay bi lu ko jiitu teewlu ngeen Cheikhouna Keita mi jiite tey association bi ëmb njabootu ñu lorule ci bateau Joola ñu ngi leen di gërëm ci déglu bi gërëm Jaawo Diallo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi mun ngeen teewluwaat émission bi ci mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu jàmm